le portail du Baol sur mën ngeen a abonné sunu chaîne YouTube Baol ngir ngeen di man di jot bépp xibaar bu ñu dugal. dalee jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyantoo yéenekaay gii di réew mi quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu borom réew mi di Macky Sall tey jii dina ñàkku ginnaaw digg bëccëg gi bu ñeenti waxtu jotee ca palais de la République yéenekaay gii di L'As ak Vox Populi ak L'Observateur ak Sud Quotidien xëy di ko dëggal nee njiitu réew mi di Macky Sall tey quotidien ñu xëy fekk fa patronat bu Sénégal maanaam kuréel gi nga xam ne moo ëmb mouvement ak entreprise yu Sénégal di MEDES ñu génne ab communiqué di wax ci ñàkku yi di sàkku ci personnel bi ñi nekk ci entreprise yi ñoom ñëpp ñu dem ñàkku ndax bu ñu ñàkkoo danañu mën a aar sunu njaboot aar ñi nga xam ne ñoom la ñuy liggéeyandoo mën a aar ñëpp te danañu mën a aar sax seenu liggéey ndax coronavirus bi bu yàggee ci réew mi du baax ci mennum xëy ñoom ñi nga xam ne ñoo séq MEDES ci seen communiqué boobu ñoom nag daat nañuy rafetlu bu baax a baax li nga ne maanaam mooy campagne de vaccination bi ni xam ne moom la commencé nag ñoo ngi jaajëfal ñi nga xam ne ñooy acteurs yi ba pare di sàkku ci askanu Sénégal gi yëpp maanaam ñu ñëw adhéré wu ci campagne de vaccination bi ñaax askan wi ngir ñu ñàkko ndax ñoom jàpp nañ ne loolee moo mën a saafara li nga xam ne mooy woppi coronavirus ji président Mbagnick Diop ci biir communiqué bi moom mi jiite entreprise du Sénégal daat nay wax ne li nga xam ne mooy coronavirus bi nemmeeku nañ ne maanaam faagaagal na mbooleem suñu entreprise yi faagaagal mbooleem suñu économie bi te jël mesure barrière yi dem ñàkku ji sensibiliser askan wi dara ëpp ko si solo yéen gi de Le Quotidien moom tim xëy di ñu xibaara naan ñu coronavirus bi tax na ren ji 4 avril fête de l'indépendance ñu ko doon defee ci Sénégal xumbute yi ak yu si aju ren ji du am coronavirus bi moo ne bu fi 4 avril amee nañu ko doon amele kaay gii di réew yaatu ak économiste bi moom nag nee na coronavirus bi bu njëkk bi moo gën a faagaagal économie réewum ak économie bi nekk ci àdduna bi waaye nag gis nañ ne ñaareelu vague bi daal maanaam tane na ci économie réewum Sénégal wax na ci lu jëm ci mille milliards yi ak ni ñu ko doxaleeg solo si nga xam ne am na ko wax na tamit état état bu Sénégal nan lay defee ay jéego ba jóg ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la nekke waaye tamit daan nay wax ne état bu Sénégal jamono ji ma ngi soqaliku ak tourisme bi nga xam ne am na jafe-jafe yan feem la ñuy tekk ba maanaam daal di waat yëkkatiwaat loole lépp wax na ci ma ngi ci yéen a kaay gii di réew mi quotidien yéen a kaay gii di Walfadjri xëy di ñu xibaar naan ñu maître Abdoulaye Wade jóge na ci réew mi dem na ca Paris la France vol spécial moom la Abdoulaye Wade jël waaye na xel tey na xel yaa ngi jeexi jaaxa ci voyage Abdoulaye Wade boobu yéen a kaay gii di Les Échos nee na Abdoulaye Wade jet jël benn xarit xaritam émir moo ko ko daal di jox jox leen ma yéene kaay gi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa ay xale yoo xam ne démb doon nañu leen atte ci tribunalum Dakar xale yooyu nag li ñu def xale yi nee nañu kenn ki nee na doomu Macky Sall la kenn ki nee na doomu Idrissa Seck la xale yooyu dañoo demoon ci hôtel Lagon maanaam nag di fa jàbba jonge di noosaka gundaandaata yéene kaay gi di réew mi quotidien nee na xale yooyu nag niki démb atte nañu leen la leen atte maanaam escroquerie ak usurpation xale bi nga xam ne moo tudd Saliou Mbaye nee na mooy Amadou Sall doomu Macky Sall keneen ki nga xam ne moo tudd Lamine Seck moom nee na mooy doomu Idrissa Seck mi jiite conseil économique social environnemental ak seen yeneen i xarit yoo xam ne ñoom lañ àndaloon ñoo demoon ca hôtel la ko doon commandé ak doon fa noos ak doon fa gundaandaata yéen kaay gi nee na ñooñee nag teg nañu le loxo niki démb la ñu leen doon atte la nga xam ne moom lañ fa jote jaay ni ab xaalis bi ñu ko xayma toll na ci un million yu fegg juróomi téeméeri junni yéen kaay gi nee na xaalis boobe nag xale yi bi ñu leen tegee loxo maanaam fayuñu ko ki ko fay nag mooy Ibrahima doomu Macky Sall moo wax waa pale ba ne leen nag kon ñun lañ doon mbubboo ko maanaam fay leen xaalis bi waa pale fay nañu xaalis boobee yéen kaay gi du l'observateur ak la tribune ak las ak enquête xëy di ñu xibaar naan ñu assemblée nationale ni ki suba ci àjjuma ji soo muy tuulee danañu futti Ousmane Sonko la tribune ñun amuñu si benn xel ñaar ndax nag majorité bi Macky Sall la àndal te ñooñu xam ngeen ne lu ñu leen def law moom la ñuy def yéen kaay gi nee na ñu bari njort nañu ne Ousmane Sonko bu subaa bu ñu demee assemblée nationale bu ba pare bu ñu wàññee xob yi ña ëpp daal la ñuy wax mooy dindi leen malaanu kiir ayu Ousmane assemblée nationale jël nañu son Sonko jébbal nañ ko àttekat yi yéenekaay gi di critique nee na suba ci ajuma ji dana nekk ajuma joo xam ne dina tàng jër dina tàng jër dina saf sàpp dina wex xat yéenekaay gi nee na Adji Sarr mi nga xam ne moo tuumaal Ousmane Sonko lu jëm ci wàllum siif ak wàllum menace de mor tey jii si alxames ji danañu ko daal di déglu juge d'instruction bi nga xam ne moo yor dossier bi moo koy déglu yéenekaay gi du l'Observateur nee na Adji Sarr mbaadu lañu ko waajal ndax démb gisante na ak ñi nga xam ne ñooy ay avocat ma Adji Sarr gisante na ak ay avocat waxtaan nañu yéenekaay gi de Les Échos nee na xuloo bu mag ni ki démb amoon na ca assemblée nationale ci bureau bu assemblée nationale diggante député Cheikh Bara Dolly Mbacké ak député Abdoulaye Makhtar Diop ndax Abdoulaye Makhtar Diop moo jël kàddu gi na ko Cheikh Bara Dolly am na lenn loo xam ne texte yi dañu koy tere te nag war ngeen koo bàyyi ndax li ñuy waxtaanee ci bureau assemblée nationale wër ta senn waru leen a dem di ko wax ñi nga xam ne ñooy tas ko du xabaar yi ba muy daane la Cheikh Bara Dolly Mbacké jël kàddu gi na ko yow Abdoulaye Makhtar Diop lenn loo xam ne mën nga ko maanaam yow nekkoo référence ci kenn fii mënoo tëddee njaaxaanaay Dieng ndax yow koo xamante ni ndékkee na ak Léopold Sédar Senghor yow koo xam ne añanoo na ak Abdou Diouf yow koo xam ne reeroon na ak Abdoulaye Wade jamono ji Macky Sall jox la ca wàll si gato bi ana nan nga mën a tëddee njaaxaanaay yéene kaay gi di réew mi ko de Dieng ci xëlim ak Assane Samb nee na nag mbir mi maanaam du yomb benn yoon ci juge d'instruction bi nga xam ne moom lañ jox dossier bi waaye nag jort nañu ne juge d'instruction bi yàgg naa dund ay pression yu mel nii yéene kaay gi ba tey ci xëlim ak Assane Samb nee na nag trouble à l'ordre public am ñi nga xam ne nag ñooy jegeñaale Ousmane Sonko dañoo war a ànd akuk dal bàyyi yoon def liggéeyam naam mbir mi bëri na politique waaye nag jamonoy politique am na jamonoy bàyyi yoon def liggéeyam am na moom Assane Samb wax ne Ousmane Sonko li koy noppal ci mbir mi maanaam mu dem wuy ji yoon comme na nga xam ne moom la ko waxee woon yéen a kaay gii di sunu lamb nee na fukki weer ak benn ginaaw bi ñu arrêté lamb ji ngir woppi ko. bawol moo leen di jox ay xibaar yu gaaw te wóor yu xarañ te mën